jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi nii taxaw ak euh, doyen Cheikh Amar ñëpp xam ko ci presse locale bi fii ci Touba souvent doyen euh, xew-xew yu mel nii su amee presse locale bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di lancer message yi di woon ni askan wi dañuy am ay jafe-jafe pour mën a def seen liggéey normalement naka nga ko dundee. jërëjëf soxna waaw lii dafay firndeel rek ne euh, Sénégal dañu umpale Touba rawatina nag ñi nga xam ne. ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon a taxaw bañ cee ëpp la lenn ndax dama jàkkaar ne organisation bu mel nii ku ko mën a woote Touba presse locale bi xamuloo seen dayoo xamuloo seen gëdd ba di leen prévoiral ay dix bat yi nga xam ne tey buñ jëloon rajo locale yi rek loolu mënu koo matale loolu yaa problème li fi nekk ci ay site internet yoo xam ne ñoom dañ koy bàyyi xel lu ci bëri ci Touba fa lañ koy gisee wala buñ fi ñëwee xam nañ ko ñu war a mën a prévoir ñun ñëpp pour presse bi de de de budget loolu mooy bëgg ñoo tere liggéey ak umpale ñu loolu nag yàgg na fi ndax lu Tuubaa noonu la wax nañ ko fi waxaat ko fi nu sommes tout le temps laissés en rade loolu nag juumte lu rëy la bu ñu yaakaaree ne. rajo classique ak télévision classique yi nga xam ne ñoom lañ baaxoo di déglu te ñooñu bu événement amee Touba képp lañ leen di seen ci biir Touba fàtte ñi nga xam ne tey bu fi nit ñi ñëwee ñoom ñoo tax ñu ñëw fi muy site internet yi muy rajo yi bu nit ñi ñëwee ñooñu ñoo relayer message yu bi ñu teew fii tey tey nag ñu ñëw fii yaa ngi nii coono problème sa technicien sa caméraman man mi lan moo tax ñu ñëw heure bi li tax ñu ñëw heure bi mooy fonk suñu liggéey xamit dayoo bis bi ñi nga xam ne ñoom lañ dencal bat yi kenn newu fi te ñu nag li ci presse locale bii mën mënuñ ko ci loolu c'est à waxoon naa ko fi ci màggalu tey nag événement majeur a ngi nii ñu ngi nii di ñu waaj a génne fii ñu nekk nii pour lan parce que yor ñu bari ça c'est pas bi pose problème ah mais bien sûr accès presse parce que sóoraale wuñu leen parce que umpale liggéey bi ñu def depuis le début jusqu'à présent ni ñu relayer message yu sëriñ bi ni ñu demee ci kilifa yi wax leen leen niñ ci defee ay émission booy xam ci site internet moo ci rajo yi ba tey nag ñu war a couvrir toute la journée d'ailleurs dañoo tàmbali heure bi lañ bëgg a tàmbali ay waxtu ay waxtu ay waxtu ci kanam ku war a def loolu nag ñu ne la doo ko fi loolu mooy umpale la soxlaa wax merci beaucoup